rabbi yaa ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi yaa ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi wa tanala bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wa ashrafu alsalati wa atamu taslimi ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida ah, mbokk yi dellu siwaat nañu ci ndimbalal sunu boroom subhanahu wa taala ak kartanam ngir jéem a laabirante ci laaj yi nga xam ne mbokk yi dañ ko fay baaxee rotal euh, ñuy sukkandiku ci mazhabu imam malikin waaye nag di bàyyi xel mbooleem mazahib yi nga xam ne wala waxi borom xam-xam yi sukkandiku ak a doyloo seeni wax bu laaj bu njëkk bi mbokk mi laaj ne ñoom dañuy jënd géej buñ ko jënd nag day tooy waaye buñ ko jëndee ba agsi day xaw a wow su ko defee dañ ciy wis ndox ngir bëgg mu tooyaat jubluwuñ ci tooy gi sax ngir bëgg mu gën a diis wala ay naxaate waaye lañ ca jublu rek mooy eh, ngir sàmm seen alal muy laaj ndax loola dara du ca nekk waaw bu fekkee niñ ko waxee noonu la demee su ba loola dara nekku ci bu dee géej moom bu woowee da yàqu du neexo jaay ñoo wis ci ndox ngir mu noyyi insha allah te defuñu ko ngir mu diis ngir ñu ci am bu baax waaye lañ ci jublu rek mooy seen alal su ba dara nekku ca mu mel jaay ko du sokolaa bi léeg dana ko faral di dal léeg-léeg chocolat bi noonu muy dange noonu doo ko mën a jaay noonu faaw nga def ci diw su boobaa nag da ngay fexe ba lu toll ne lor ja rek nga def ko ja maanaam boo ca wisee ndox ba mu neex a jaay su boobaa loola doy na boo ci yokkee leneen wala nga am beneen jubluwaay nag ah dañuy dellu ci innamal amalu binniyaat su boobaa loo ci jublu rek at lay am naka noonu commerçant bi bu fekkee moom it day jël diw ku baree bare def ko ci chocolat bi nga ne lam ci jublu mooy mu sakkan su boobaa loola day riche yonent bi ne man ghasha fa laysa minna képp kuy kooj mooy jël dara di ko rax ci dara ngir bëgg xaalis ba gën a yokk wala bénéfice ba gën a yokk subaa loola yonent bi nee na kooku bokkul ci jullit ñi kooku yoru yorugul jikkoy ab jullit bari na ñu koy def nag kon nag boo ci mënta ñàkk def leneen danga cee def lu yem loo xam ne la nga ca bëgg dana baax waaye neen di ci sotti diw ba koo jaay dara daanaka diw kese ko koy jaay kooku moom baaxut xaraam na wallahu taala aalam mbokk mi ne ku romb ku ñuy agressé te mu gis ne moom de bu demee daanaka dañ ko cay boole waaye mënu ca dara nu muy def waaw na muy def mooy dem te jéema wut solution waaw dem te jéema wut solution moo xam day yuuxu woo waa koñ bi ñu mën a génn moo xam day dem ci ak kër woo fa ay nit ñu bari ñu leen am na ku ñu agressé fee euh, moo xam daal pexe mu man na def ba fa kàttanam yem waaw fa kàttanam yem waaye nag bàyyi ko fa noona ñu di ko lor te defoo benn effort am na loo mën a def loolu boo ko defee da ko ci amee xàq ndax it na xam nga mën nañ ko rey man ko bàyyi man ko ko bàyyi noona daw gannaaw bi nga yëg ne am na ko ñu fekk fee mu dee te fekk yow yaa ci deful dara kon nag woo police boo noppee dugg ci koñ yi ah, am na ku ñuy agressé feekat nangam nangam wala nga yuuxu bu nit ña baree rek mën nañ koo bàyyi wallahu aalam laaj bi tege mbokk mi laaj ne kuy jaay parfum gannaaw ba ñu xamal ko ne ko parfum yii ngay jaay kat am na ñoo xam ne ci la ñuy jaare di ci màndi loolu lu mel ne ginskat yi danañ ko faral di def danañ di faral di jël parfum yàlla yàlla gindi leen ndax loola waxumal dara waaye day rey ab xol daanaka xaru la nga xam ne araam na ñaari yoon ci màndi gi ak yàq gi muy yàq wér-gu-yaram su boobaa nag loola du tax nag ñun la sa parfum bi ngay jaay day araam day let ndegam parfum moom lu baax la te ñi ëpp ci nit ñi dañ koy jëfandikoo ci ak njub ka koy jëfandikoo ci lu bon du tax ñu ne nag lii dafa xaraam waaye nag bu fekkee xam nga ñooña ba ràññee leen jar na bu ñëwee di jënd la gën a sàmm sa diine mooy nga gàntal leen waaw bu ñëwee di jënd daal nga gàntal leen ngir sàmm sa diin waaye daal du tax ñu ne la nag jaay parfum dafa araam mi ngi mel ne paaka am na ñoo xam ne paaka dañ koy jël di ci def lu bon di ci agressé di ci def yeneen mbir su boobaa loola du tax ñu ne jaay paaka dëgërut ndax ah, kay ndax ñi ëpp ci ñi jënd paaka yi dañ ci dagg seen mbir wallahu aalam mbokk mi laaj ne koo xam ne eh, dafa dégg boog am ku ne ku bëgg ku bëgg a mucc ci seytaane da ngay bàyyi seytaane yàlla nañ ci yàlla mus da bàyyi yëfi seytaane yàlla nañ ci yàlla musal nga xam naa man nag su ma doon wax dama naan ku bëgg a mucc ci seytaane da ngay góor-góorlu ci njub te ñaan yàlla mu musal la ci audu billahi min asheytaani rajim ndax seytaane moom mucc ci moom daa yombut suñ borom mi ko moom not ko rek moo ci mën a musal ab jaamam moo ci mën a musal ab moo tax suñ borom ne yonent bi del muslu ci man ci seytaane ndax seytaane dafa bari doole ku ko yàlla bàyyal rek boo watul dana ko jàggiruur waaye wax jooju liñ ci jublu rek ku bëgg a bàyyi ku bëgg a mucc ci seytaane da ngay bàyyi yëfam mbokk mi laaj lan lan mooy yëfi seytaane lu yomb na yëfi seytaane mooy lépp lu yàlla gërëmut lépp lu yàlla gërëmut jàpp na ci bagage seytaane la bokk ndax ñaari parti ñoo am parti bi yàlla ak parti bi seytaane xisbullah ak xisbu seytaan waaw ñaari parti yooyu mu am li fekk yaa ngi góorgóorlu ci ndigale di wat na di ko tere yi sa kem kattan la nga ca ko tuub yaa ngi bokk ci parti bi yàlla nag ah nekk ci ay tere yu suñu boroom subaa nag yaa ngi ci bagage yi seytaane waaw yàlla nañ ci yàlla musal waaw mooy rek yu bon yi daal fexeel ba jëw rambaaj fen lekk alal ju baaxut jaay noo wërta jaaye carte ak lépp lu ko nuru rek nga jéem koo bàyyi ah, maanaam loolu li la bëgg a wax mooy boo bëggee mucc ci jigéen da ngay bàyyi toogaayu jigéen waaye bu dee nag yaa ngi sa téléphone yaa ngi seetaan ay jigéen di xool seen taar ah da xool mu yàgg mënu ko ñàkk woo nga lijjanti numéro bu lijjanti numéro nga gisee mooy yàlla daal di am waaye bu fekkoon ne ba nga gisee photo jigéen jër da ngaa daal di jàll nga ne jéemoo ko xool kon da nga ci mucc inna salaamata min salma wa jaaratiha an laa taxulla bi waa xawla waadiha waaye nag bu fekkee lépp rek yaa ngi jaxasu jigéen ji am ak ñu lay xool ay bët nga di leen xool di la njoos a ah, nga kon continuer noona sëñ Tuubaa nee na doo mën a mucc da ngay fexe kay buñ nekkee fee nga nekk fee la nga mënta ñàkk jëfalante ñoom nga yem waaye boo jaxasoo ñoom yenn jaxasoo yi rek mucc ca dana jafe loolu rek la bëgg a wax ci seytaane moom it da ngay bàyyi yëfam waaye mënoo toog ci kaw deru seytaane sol ay dàllam sol yëleem sol mbubam naan auzu billahi mina sheytaan rajim sa bopp nañ ci yàlla musal mbokk bi di laaj ne kuy julli kabbar yi ngay kabbar ndax da nga ko war a béral wala da ko war a yalu da ko war a béral nga wax allahu akbar moo xam julli ka jullik béral la wala jullik yalu la waaye nag boo ko yaloo tamit nag du wàññi dara ci julli ka waaye daal deel kabbar ca kaw laaj jur am xar wala bay wala naa deme nga sartante ka ko dénk ne ko yaa ma koy sàmmal li ma ko toppatool bu juree ma jël bu juraatee ma jël loolu tontu nañ ko ay yoon yoon yoon damaa xamul lu tax laaj bi di ñëw ak ñëwaat te moo di bu fekkee loolu ab charte la nga xam ne mooy li ngay fayee waa ji nga ne nekkul ngir yàlla su boobaa loola riba la araam na sariya da koy tere ah ndax loola lu wóorul la xamuñu ndax xar mi sax dana jur aslan mën naa jur nga jël far mu dee waaw jëmmi xar mi ci boppam de kon yooya ay mbir yu lënt da caa am maanaam mënoo fayee loo xam ne xamaguñ ndax dana am wala amut loolu dañ koy tere mhm. ci xaaxida yi lislaam yi la bokk mooy bépp jëflandi boo xam dafa am xaral wala xatar waaye nag bu fekkee moom dafa laa téel ngir yàlla rek euh, wax dëgg yàlla wala boog sax da koy fay waaye ba mu juree yow yaa ko may wala boog moom dalaa téel ngir yàlla rek waaye yow yaa ne ko ah xar mi de xam naa ne bu yàlla dogalee mu am doom su ma ko féetee bu amaatee doom yow laa koy may su ma ak may lay tudd loolu dagan na moo tax loolu nag moo ca gën mooy kii la ko yoral yoral la ngir yàlla yow nga def ci ak coobare woo di ko jox ngir yàlla allahu aalam laaj bi tege mbokk mi euh, laaj ne day dégg ñu ne euh, jigéen bu gis dereeti baax maanaa daal lu mu togg waree su koo lekk wala ak ak toggam baaxut euh, awalan lii ñàkk teggin la waaw lu yaradiku dëgg-dëgg ak ñàkk teggin ku mel noonu mooy wax wax ju mel nii waxuma nag koo xam daa xamul moom di laaj waaye pas-pas bu mel nii maanaam jàpp loolu ak yaradiku la waaw jigéen ñi bu fekkoon ne du duñ gis dereti baax kon kenn du judd waaw kenn du judd dereti baax joojee <laughs> ci la doomu aadama yépp di judd waaw ndax loolu mel na ay nen di nekk ci jigéen loola kuy judd ci ci la la yàlla jaarale boole kook màndi yu góor ñu sos doomu aadama bu yàlla dogalee nag jigéen ja sëyut nen yooyu day mel na lu toj nekk deret di génn kon loolu dañoo war a wormaal jigéen di xam ni ñuy jëflanteeg jigéen xam na wax yoo xam ne ku ko seetlu sax da nga xam ne respecté woo sa waajur wi la jur ñu bàyyi ci xel euh, waxuma nag ki xamut di laaj kon loolu li muy tekk rek mooy wax jooju xam nga du waxee dara wax jooju wax jooju du wax jooju du waxee dara <laughs> du du waxee dara Euh, jigéen mu gis baax ak mu ñàkk a gis baax loola moom du ci dara du teey day togg di la jox ngay lekk mu lay may ndox kon ak yenn xeet waxee jigéen ju gis baax du la may ndox ak ndax sobe laa ak loola du dëgg loola du dëgg tey du ay teggin yonente bi sallallahu alayhi wasallam abu hurayrata mas naa am dereti mas naa am janaba sëngoogut gis yonente bi dem di ko làqatu <laughs> waaw yonente bi ne waaye lu mu doon waaw ndeysaan mu ne ko man kat damaa dawoon dem suñ kër léegi dem gaaw sang ji ndax kat bi nga may gis kat daa fekk ma yor janaba euh, damaa damaa damaa laabutoon yonent bi ne ko ah kay ab du sobewu waaw yor yor janaba joo war a sangu wala jigéen ji gis deret baax loola tekkiwul na jëmmi julli bi ci boppam daa salte wala déedéet naan rek am na janaba war naa sangu loolu lañuy wax rek ci àtte sharia yi wallahu aalam loolu nekkul lu wér tey du ay teggin bismillah alhamdulillah <clears throat> bu dee laaj bi ci tegee mbokk mu baax mi day leerlu ne dafa dégg ñu ne di xaritoo koo xam ne du ab jullit li ñu tudde dëgg-dëgg xaritoo dañ koy tere muy laaj nag ndax bu fekkee ne kooka dafa yor jikko ju rafet maanaam chrétien wala koo xam ne ab yéefar boo xam ne daa yor jikko ju rafet ndax kooka ca tere ga la bokk wala déet waaw xam naa mbokk mi boo seetlu woon li nga laaj tontu bi am nga ko ndax ba nga ne dañuy tere xaritu ku ab jullit loolu moo wax ji jeex na léegi kii ngay wax da ngay xool ndax jullit la wala du jullit bu fekkee du jullit kon bañ ne laa xaritoo ku dul jullit rek booba fax ji moom jeexoon jeexoon na kon foofu moom leer na nañ laa tattaxisul yahuda wan nasara awliya alquran nee na bu leen dem ci chrétiens yeeg juif yi di ci wut ay xarit bu ngeen wut xarit wut leen ko ci seen bokki jullit ñi léegi na bu fekkee jikkoom rafet na kenn ter téréwu la nga am moom relation bu rafet néew na na nga noonoog ñoom ña ngay noonal ci yéefar yi mooy ñi nga xam ne dañuy xeex lislaam amma yéefar yi nga xam ne moom dëgg yàlla may nañ la jàmm kooku moom mën nga leen dëkk dëgg ku rafet waaw bu ñu amee sax mbégte mën nga leen ndokkeel waaye na ngay wattandiku di dem seeni yëfi diine wala di dem ci barab boo xam ne ñoom kat euh, dëgg yàlla dañ fay def lu xaraam ci sàngara wala yu mel noona loolu dëgg dëgganut loolu moom dëgg moo tax kiy jaxasoog ñoom dañuy bëgg mu nekk ku xam diineem lool nga xam ne dana xam fa mu war a yem lu ci ëpp bu ko xamul diineem lu ci ëpp dana ëppal ba def loo xam ne waru koon a def suñ tubaab bi ne laakin mudaaraatuhumoo qad nudibat kama bi nafsin fi xadisin qad sabat ah daa waxoon ne de walam talix illa li aalimin illa li aalimin kamil qad kaana za adalatin wala yamil waaye day borom xam-xam xam mat boo xam ne du jeng amul complexe kooku lañ may muy duggante ñoom yéen duggante yi te wut daal ab jullit suñ borom téerewu ko ca laa yanhaakum allahu ya koo xam du jullit koo xam ne may na ko jàmm séq nañ jàmm ak salaam mën naa am moom relation bu rafet waaye li ñu tudde xaritoo nag ngay xam say sekk ngay xam sekk ngeen di séqi demalante ak dëkkalante ko ci jullit ñi wax dëgg nag bàyyi fi sa mbokki jullit di xaritoo keneen loola dafa xorom am nga mbokki jullit yoo xam ne yaa ngi xuloo ak ba léegi kay juboogu leen <laughs> wax dëgg yàlla nga bàyyi fa ñooña dem di xaritoo koo xam ne loolu day kon yàlla ji moom du fa nekk wa ahbibil mumina lil imani wal tubghidal kafira lil kufraani Euh, kon booy wut xarit na ko wut ci ñi am ngëm yàlla ak doonte sax da nga am jikko ju la neexu ca ñoom jikko jooju muñ ko ngir gëm gañ gëm yàlla yéefar bi tamit jikko jooju nga naan daa rafet ci moom dëgg dëgg bu jikko ja rafetoon mu nangul yàlla mi ko bind waaye ko xas ba wedde yàlla kooku jikkoom ci zahir nii mën naa rafet waaye ca dëgg-dëgg ca biir ga nag day bon innamal mushrikuuna najas alquran nee na ku gëmul yàlla am na sobe joo xam ne biir la mooy pas-pas bu yàqu euh, alxuraan nag nee na tere naa di siq di xarit di dugalanteeg ñu dul jullit waaye du tee da gis ñu bari di ko def kon nag ñu ngi lay ñaan nga bañ bokk ci ñooñu yàlla buñ ci yàlla boole. mbokk mi di laaj ne dafa da doon julligee imaam rawe ko ñetti rakka nga xam ne kon benn rakka dong la am ca julli ga nu muy fayee na muy fayee mooy bu imaam sëlmulee danaan ñokket jug taxaw jàng faatiha ak saar ca kaw ca kaw faatiha ak saar ca kaw rukon sigi rukon Euh, dégg nga sujjootaat daal di siggi toog daa di taaya foofa su ko defee imam jiite na ko benn fay na benn da koy boole muy ñaar day toog taaya mu daal di jugaat taxaw ne allahu akbar jàngaat faatiha ak saar ca kaw rokkon siggi rukkoo dem sujjoot siggi toog sujjootaat daal di jóg taxaw indi benn rakk boo xam ne faatiha dong lay jàng te da koy yelu su ko defee ak julleem day daal di mat allahu alam mbokk bi laaj na koo xam jëkkëram daa faatu waaye daanaka muur na ba summi ñu doog a dafa ëmb nu may def ah ni may def mooy mooy ni ñëppay def rek loolu amut bu yees ni muy def mooy ni ñëppay def rek mooy topp ab ëmbam ba ëmbam jeex nga xam ne muuraay summi gam njëkkoon summi moom day yàqu ndax iddaam moom jeexawut iddaam moom mooy mu am doom comme xamu ko woon nag loolu du ci benn bàkkaar waaye heure bu yëgeen daa ëmb rek day daal di solowaat daal di tënjar ba ëmb bi jeex tàkk boobu bi jeexee nag su ko defee nag doom jooje bu juddoo ànd ak bakkan day donn ah, day bokk ca alali alali doona ja kon lu mel noonu deesul miraas alal ji dañ koy dañuy taxawal alal ji ba keroog doom ji juddu ñu xam lu mu doon bu fekkee nag daa am ngant lu mënta ñàkk am na nuñ ko mën a miraase waaye yooyu moom lu indi ay jafe-jafe lay doon day indi ay jafe-jafe lu xaw a naqari miraas lay doon bokk nañu ci masala yi gën a yi gën a jafe téewul nag ñàkk man moom ah, mën nañ ko su ko defee loolu rek moo ci am ak soppi xam naa nag wax dëgg yàlla diggante bi ngay muuru moom nga xam ne ñeenti weer fukki fan nga toog ko te yëgoo ne ëmm ga mel na ne xaw naa jafe yàlla xam allahu aalam mbokk mi laaj ne fajoru weeru koor da cee tëdd gént xam naa li mu bëgg wax daal mooy gént di sëy far génne mani yu amma bu dee ngaa gént di sëy dong waaye dara génnut loolu mooy yàqu yàqu ci dara bu dee nag da di sëy far génne mani yu bu fekkee loolu la bëgg laaj kooku moom day dem raxasi sobe sa rek dem sangu janaba waaye du tee koor ga moom ba tey day baax kon bëccëgu weeru koor ku ci tëddee di nelaw man yàlla dogal nga gént doonte génn nga mën yu mën yu moom du yàqu koor ga da dem sangu ji rek incha allah raxas mën yu ma daal di continuer sa koor doo ci fayante doo ci dara wallahu alam mbokk mi laaj ñu euh, tafsiral ko ayatul kursi yi alxuraan dama ne woon dama ko jéggulu dama ko dama ko jéggulu woon waaye ayatul kursi yi daal doy na sëkk nga xam ne buñ la laajee ay bu gën a tedd ci alxuraan nee ñu boo ko joxoñee juumoo donte alxuraan moom lépp a tedd turu yàlla yi nga xam ne nee ñu képp ku selal ñaan ci yàlla yàlla du la gàntu bokk na ca fam rot mooy foofee mu ay muy alxayu ak alqayuum waaw boo demee ca suuratu taaha tamit da nga ko ca fekkaat boo demee ca suuratu ali imran ca bopp ba alif laam miim da ko ca fekkaat ñetti yoon la rot ci alxuraan ci ayatul kursi yi moom kuy def yonante bi moo nettali nag ah, saa yoo jullee ba noppi jàng ko kooka faatu moo la tee tàbbi àjjana insha allahu rabbi faatu moo la tee tàbbi àjjana mu ayatul kursi yi moom yi lépp loo bëgg mu am kaaraange boo ko ca taree insha allah dana am kaaraange moo xam sa palaas da wàcc di tëj sa place tari ko ca wala da ngay dugg oto wala da ngay dugg avion wala sa téléphone bii nga tari ko ca tefli ko ca wala sab saak wala lépp loo bëgg mu am kaaraange incha allahu rabbi da nga ci gis lu gën a lu yéeme euh, bokk na ci lim gën a aye nag mooy wàllu jinne lépp lu ci aju waaw moo tax ab liir buy doo ko juddu na ko ko taril ndax jinne yi kat dañuy faral di bëgg mbirum liir ak yu ko nuru naa nee ñu kon ayatul kursi moom la ca nekk ci tuyaabaaki njariñ yàlla rek moo xam moo xam nu mu toll amaa di ko firi nag dañ koy jéggalu defe naa sax lii moo ci ëpp njariñ moo ci ëppal njariñ jullit bi bu dee laaj bi tege mbokk mi laaj ne daa am ñoo xam dañuy yeewu ci jamonoy suba nga ne julli ñaar rakkee fajar du ko waaye ñoom duñ ko julli waaw xëy na dañoo xamul rek xam nga da ngay gis nit ñu bari ñu def dara nga naan lu ñu koy def fekk dañoo xamul rek wallaay nit ñi ñi ci xam seen dina bariwul de <laughs> waaw nga gis koo xam ne wax dëgg day sol dara ju rëy yorub sikkim yor course bu baax waaye daal wax dëgg diina ji du ko xam yow nag li lay rey ci kaw mooy da ngay def ne rek diina ci ak la nekk da ngaa gis benn grand ñëw sol lakostam euh, sol jiinam wala nangam nga defee ne kii warut a xam diine fekk xam diine ajuul ci loolu am njàng rek la ndax nit dee su ko xeeb wala ñu koy naw ci ak colu kese waaw donte ak col am na solo waaye nag dee ko ci naw rek di ko ci jugé kon mi ngi ne kon ñooñu dañoo xamut heure boo xamee ne yeewu nga te fekk jant bi moom yëkkatee googut nga xam ne man ngaa julli ñaari rakkee fajar mën a julli ñaari rakkee suba ñoom ñoom ñeent ñoom ñeenti rakkee yëpp ngay bokk ko waaw doo jekki-jekki ñëw julli suba kese déedéet fiñ naan da ngay julli suba kese mooy bi nga yeewoo fekk jant bi di waaj a jóg nga xam ne kat boo bëggee julli ñaar rakkee fajar sërmal bëgg julli ñaar rakkee suba su boobaa kat euh, ñaar rakkee suba mën naa génn wala jant bi mën naa génn soit dañ naan la jullil ñaari rakkee suba waaye nga liqaam julli suba li ci des nga bàyyi ba ay huit heures quarante neuf nga daal di julli ñaar rakkee suba xëy dañoo ñooñu dañoo xamul rek mbokk mi laaj ne dem banque ba ñu bari ci bitim réew ne dañuy dem ca banque ba banque ba di leen euh, maanaam lebal leen ñu jënd kër mu ne ndax loolu moog lebi araam ñoo waa bu fekkee ne banque bi def lay lebal xaalis nga dem jënd kër loolu kay benn la rek waaw bu fekkee da ciy teg intérêt benn la rek mooy lebi araam rek benn la léegi nag bu fekkoon kër gi ci boppam banque bi moo koy jaay daa su boobaa loolu dagan na waaw fekkoon banque bi ci boppam xëy na habitant bi euh, nu mu tudd sax ki ki euh, immobilier bi dafay day defar ay këram lëkkoog banque bi xam ne banque bi ci boppam moo ñëw moo lay lebal kër gi moom xam ne bi mu lay lebal moom kër la la lebal loolu moom dagan na waaye amaa bu dee nag da ngay waxaale kër bu noppi banque bi fayal la naan kon banque bi daanaka xaalis la la lebal subaa loolu moom xaram na wallahu aalam euh, mbokk mi leer lu neen day gis lu mel ne xew-xewu diine yu mag yi màggal ak gàmm mag yu ko nuru xeetu cant yi euh, kuréel gu mel ne LONASE muy këru carte gi nekk Sénégal ñëw di indi ay ceeb te loolu dañ koy dugal ci kër kilifa yeeg yu ko nuru eh, wala boog nga gis ay waykat ñoo xam ne xëy na ci way rek la ñuy yëngatu ñu leen di dalal di leen di leen yaatal bu dee bu njëkk bi de moom wax dëgg bu doon dañuy xool diine rek kenn du may kër goo xam ne carte dong nga lay liggéeyee mu ñëw ci kër ci xew-xew boo xam ne diine rek la waaw xew-xew boo xam ne wàllu diine dong la ci misaal bu dee gàmmu dañu dañuy màggal yonante bi di màggal yonante bi nag koo xam ne moom day carte lu yonante bi bañoon bañ loo ko xeet wi kooku ñëw di la jox ay yëf nga di ko jël kooku moom du tegu fenn ci ci diine tayit nag day tax taalibe yi dañuy ñeme carte ndax dañ naan lonaase ngi nii jox na euh, sëriñ bi ceeb wala nangam mu jël ko loolu li muy tekki mooy carte daal bu ci dara nekkoon sëñ bi du ko jël kon yonante bi sallallahu alayhi wasallam daraan def yu mel noonu bu amoon da koy jàjj kon yu mel noonu bu amee euh, kilifa ga ci boom daa war a taxaw ah lonaas kat bu leen fi ñëwati ndax yéen da ngeen ne carte te lii yàlla da koy bañ waaye nag di di maslaa ci loo xam ne yàlla da koy tere loola kilifa kilifa diine goo xam day dox dox yi nu diine muy tànk yonent bi du ko def alali wala di def muraawaxa ak maslaa loolu du ko def ci lu yàlla xaraamal dañ naan nga gis lu kooku amatoo sañ-sañ di ca yeexantalu nga di ko bañ a def de nga di ca yeexantalu yeexantalu loolu dëgganut ci kilifa waa ci kilifa waa kay euh, kilifa boo ko nuyoo wat wat watu watin woo xam ne baaxut dala ko war a wax ndax bu la ko waxut li muy tekki mooy baax na ndax yow bu ëllëgee da nga naan dem naa ci kilifa gi waaye waxuma dara bu la gisee nga takk ñaari jaaro dala ko war a wax bu la gisee nga takk chaîne dafa laa wax lii sariixa da koy tere loolu kat ngeen seq waaw dëgg yàlla bu ngeen nee ba mënuñu mënu leen a jariñante la mën a jariñ ci lii kon amul amatul benn jariñ ndax lii dong mooy contrat bi ngeen seq sequ leen mu lay boot di yóbbu àjjana déedéet ni ko ñu bëri yaakaar li ngeen seq mooy mu lay gindi di la teg ci aw yoon boo defee lu dul noonu mu génn la waa kay boo xewelee boo xewelee am xewu adduna mu yëg la ñëw ca wala mu mu fekkee am na ngànt mu yónnee ca boo xewelee xew naqar mu taxaw la loolu daal lañ séq amaa nag ñoo xam ne dañuy liggéey ci eh, lu xaraam ñëw di ko jox muy jël ay ceeb wala ay basang wala nangam léera sax basang nga dañ cee dessin seen seen tur ak yu mel noonu loolu publicité la bu mag wala ñu jël ay ndox def ca lonaas wala ñu def ca dara ne mooy këru carte gi nga nangu koo jël di ko séddale nit ñi ci loo xam ne turu diine nga woote loola musiba gënu koo rëy amaa jëmi ki nga xam ne euh, day way dëgg la warees na ko jàjj waaye nag teewut moom it doomu aadama la ndax euh, doomu jëmmi doomu aadama ci boppam dee su ko toroxal maanaam nekkul rek dañ naan waykat yeeg mbëri nangam nangam euh, bu leen kenn defal nangam ah kay ay nit lañ te ñenn ñi jullit lañu ñenn ñi tamit dañuy bokk ci ay tariixa kon bu ñëwee kenn wur leen a xañ ñu gis seen kilifa wala yu mel noonu la ca waroon tegu kay mooy kilifa ga ci boppam xamal leen ni leen yow kat da ngaa nekk ci lu jaaduwut waaw bu fekkee moom it day ñëw dëgg yàlla ñu gën koo fonk sax ci ñi fi gën a yàgg taalibe yi fi gën a yàgg duñ ko tere la muy def muy ñëw di indi eh, ay oto di indi ay nangam ñu jël ko te duñ na ko lii ngay def baaxul duñ ko xamal dara boo léegi ko ko wax danaan man mii ci lii laay liggéey sëñ diw xam na ko moo ne jox naa ko oto wala jëndal naa ko nangam jël na ko musuma wax bàyyi la way bu fekkoon way dafa xaram moo ma koy tere gis nga loolu loolu rek lay jur man daal muraawaxa mooy ànd boo xam ne duñ waxante dëgg li yàlla doxale suñu diggante loola ànd la boo xam ne du baax laxi laa u yawma isin baaduhum li baadi aduwun yàlla nee na yowmal xayaam bari na relation yoo xam ne dañuy mujj noonu waaw daa yaqulu li allasina tudifu dañ naan lii li lasina stakbaru yéen yéenuñu tee jub lawlaa antum lakunna mu'minin yéen yéen ñu gisoon ñu def lu jaaduwut ñu jàppe leen ay kilifa ñëw waxu leen waxu leen ñu dara waaw loolu kilifa daal ndeysaan te gis naa fa ne vidéo bu am solo lool defe naa dañu wax ne xuma doomu sëñ Babacar Si la xuma sëñ Babacar Si mu euh, xuma mu mag ma euh, ndaa mi ne loolu lañ wax mbokki Tijaan danañ ko euh, benn waaye bu taxaw am lu wax naan waaw alaaji Maalik moom boo ko amee rek radiallahu anhu boo ko amee rek moo gën ndax moom boo ko amee rek am nga yonante bi am nga yàlla waaye da koo daal di na ko déet li ngay wax nii moom li ngay wax nii moom ñun mënuñu ko dégg kay booy am amal yàlla njëkk koo am njëkk la am yàlla waaw boo am nga booy teg nga teg ci yonante bi sallallahu alayhi ndax Malik kat ab jaam la te moom mi wax loolu alaji Malik maamam lenk la kon kilifa moom loolu la ñuy xaar ci moom sinon rek day nekk ay naxante te loolu baaxut wallahu taala aalamu sawaab Raaxib TV Raaxib TV alhamdulilah bu dee laaj bi ci tegee mbokk mu baax mi day leerlu sol kap ndax dagat na ci sharia bu dee sharia de amul problème ci kap moom xëy na wàllu aada ak yu mel noona ak ñi bëgg a yar seenu njaboot léeg-léeg am na xeeti mbaxana yoo xam ne dañ ko koy tere ngir am na luñ ca xam niki xam nañ cosaan la fa mu ña koy faral di def wala boog muy aada joo xam ne ku ko sol ci réew mi dañuy jàpp ne ku ku yëruwut la wala ñu jàpp ne koo xam jikkoom des na euh, xëy na lu mel noonu moo tax ñu koy tere waaye bu dee lislaam moom daanaka am mbaxana rek la koy jàppee du ci bàyyi xel ndax mbaxana mi nii la bindoo ak mbaxana ma nee la bindoo lislaam amul xeetu mbaxana a jëmmi lislaam ci boppam amul ak col lislaam li mu am mooy col gu yiw léegi nag waaye amul col gu mel nii wala gu mel ne colug naar olof islam xamul loolu waaw nekku ne nit day sol col goo xam dañaan lii mooy colugu l'islam day det col goo mën a sol tamit yiw jot moo xam colug ifaariyee la wala arabisan la wala nangam l'islam moom yoonam liw ci loolu fu mu bàyyi ko ak ñu ko defar li muy bàyyi xel rek mooy na yiw loolu rek lay bàyyi xel amut tamit mbaxana mbaxana mu ñaan lii mbaxanam ndax lislaam loolu taxu ko taxu ko jóg li ci des ay culture la rek ay mbatiit la kon ñi yar seenu njaboot léeg-léeg day am yoo xam ne bu ko nit solee dañ cay am lu ñuy jàngate dañuy jàngataat lii kat xëy na du ay teggin wala dëppoo ak suñu aada moo tax ñu koy tere waaye lislaam moom euh, amu ca benn jafe-jafe amaana sax nag léeg nekk lu am solo bu demee bay fegal nit aw naaj ñu nekk ci àll bi di liggéey wala ñu yu mel noonu bu fekkee amoo teengaada mën ngaa sol kap wallahu aalam waaye nag ndekam dëppwut ak aaday réew mi daal la gën rek mooy bàyyi ko bañ koo def moo gën laaj bi tege mbokk mi laaj na ndax ay nopp dees koy masaa ñett yoon déedéet lépp lu ñuy masaa benn yoon lañ koy masaa wallahu aalam mbokk mi di laaj ne mason boo xam ne dañ koo jox chantier masalan mu waxtaan ak benn waay nag may tabaxal sama kër bi terrasse lay doon R plus 2 lay doon ci misaal ñu waxaale ba mu ne ko 2 millions nga may fay ci tabax gannaaw ba maçon bi dem wutat keneen ku ko defar mu fay ko waaw mu fay ko amaat ci bénéfice waaye loolu de amul benn problème ndax li yitteel waa ji mooy nañ ko tabaxal kër gi rek nag maanaam nekku ne danaan yow jëmmi maçon bi ci boppam yaa ma koy tabaxal xam nga sa xeetu sànce yi moom nekku ne jëmmi maçon bi ci boppam day ñëw di jëla liggéeyal mën naa ñëw taxaw liggéey bi eh, xool waaye fi ne mën naa am ñeenti sànce ñeenti sànce ndax borom kër gi li ko yitteel du bii moo koy defar waaye rek ni mu bëggee kër gi nañ ko defaral noona lam cee bañ bu mu ci am na garanti su boobaa nag loola dagan na euh, dara nekku ci maçon bi am ci xaalis maçon yëpp daanaka noonu la ñuy def dañuy fayeeku entrepreneur yeeg yëpp noonu la ñuy def sànce buñ jëlit dañuy dem wut seeni meneebar ñu ñëw ñu leen di saytu ñuy defal ñu leen di fay ay journée buñ nappee nag lañ leen fay lu ca des ñu jël loola kon loola dagan na ba mu des nag bu fekkee borom kër ga da koo charte ne ko waaye nag yow mii yaag say employé yéen a koy defar su kon loola moo am ndax moo ko ci sart wala boog borom kër gi ci boppam dafa wóoluwut borom kër gi ci dafa wóoluwut kam ko jox bu fekkee dafa wóoluwut bu fekkee da koo jox koo xam ne moom da ko wóoluwut kooku moom sañ na ko wax ne ko kii moom wóoluwuma ko man daal yow yow laa bëgg nga tabaxal ma ko yaag say eh, yaag say mineebar ci misaal wallahu aalamu laaj bi tege mbokk mi laaj ne jigéen ju sëy fenn ba am fa doom gannaaw bu mu jógee foofa dem sëy feneen ndax doomam njëkk ja dana ko doon laaj bi moom daa ndax mbokk mi li muy li muy laaj ci gàttal rek ndax daa mel ne sëñ bi li muy laaj rek mooy ndax doom dana doon yaayam rek ci gàttal laaj bi boo ko jubbante rek lay doon loolu nag laaj bu xorom lay doon kon yaay daal bu xasee ba am doom doom ja dana ko doon nag la ca des nag ay da koo amee fee daa dem fee am loolu mu amul njariñ li am solo daal mooy kii daal soxna sii moo ko jur te soxna sa faatu na jeex na loolu rek la ñuy xool su boobaa loolu dana ko doon laaj bi tege mbokk mi laaj ndax téléphone boo xam dañ cee téléchargé ay xasiida ak alxuraan dees na ko dugal ci wanag waaw bu fekkee dafa gëmm bu fekkee jëmmee téléphone ba dafa gëmm nga xam ne alxuraan ja feeñu xëy na rek daa nekk ci biir application ya su loola dara nekku ci loola ayut insha allah amma nag bu fekkee alxuraan ja day feeñ wala xasiida day feeñ wala boog day jàng ca kaw kooku moom loola kenn du ko def wallahu aalam laaj bi tegee mbokk mi laaj ne ay mbokk ngi nii nekk bitim réew daal julli loo leen suba ca waxtu ba xaw xa xaw naa jafe te daanaka ci seen mbiri bopp rek la ñuy nekk ba xaw a guddee nga ne ba lañoo julli mu naaj euh, luñ leen di digal liñ leen di digal day ginnaaw bu ñu leen yéenee lu luñ yéene suñ bopp ni nga xamee nit ki bu fekkoon dafa jub kàmboog sawara euh, te nga bëgg ko li nga bëggal sa bopp da koy wax na ko yow di fii nga jëm baaxul loolu rek moo ca am ndax loo xam ne bis bu yàlla sàkk nga yenu bàkkaar boo xamee ne nam toll yàlla rek moo ko xam bis bu yàlla sàkk nga def ko ba noppi doo ko yëgal saw yaram loolu day day bokk ci jeyuk seytaane màndargam texee di yàlla na ci yàlla musal te musal leen ci ñoom ñépp màndargam texee di la mooy koo xam ne bis bu yow sa bàkkaar moom da koy assuré maana bis bu set da ngay assuré ne moom dinaa faat waxtu suba te boo ko faatee da nga assuré sa bàkkaar suñ tubaab moo ko wax nee na wan mi azima zanbi lil muaxari xata tafutuhu bila usrumturi ki faat waxtu julli nga xam ne amul benn ngànt nekk ci ay yëfi boppam ba faat wax doo julli ngir bëgg ay nelaw wala bëgg leneen ah sëñ Tuubaa nee na day kooka day na ko wóor ne am na bàkkaar bu rëy bu tegu ci kawam léegi nag ki ko yàgg def day dem ba miin ko ndeysaan léegi nag loolu mooy màndargam texe bi mooy nit tàmm bàkkaar ba bu defatee bàkkaar du tiit waaw nga ne mën naa njaalo te du ko wàññi dara mën naa carte du ko wàññi dara mën naa faat waxtu ba noppi xelam du ci dem sax maanaam moom jàpp na ne sax defut bàkkaar loola nag mooy gravité bi loolu mooy xol bu wow loolu mooy xol bu mooy xol bu wow yàlla na ci yàlla musal kon faat waxtu julli te amoo ngànt daray àdduna jëru ko dara dara te ak ñàkk ngor la mooy yàlla may la ak wér may la xamu woon ne sa bi nga nekk di seetaan ay théâtre lu ne nga seetaan ko lépp yàlla ci coobareem moo la may tawféex may la ak wér may la lépp may la xaalis boo jëndee connexion kon nag yàlla moom yi boo tëddee nelaw ba mu yàgg nga nelaw ay ñeenti waxtu wala lu ko ëpp ah wax dëgg te yàlla nag daa xereñ ndax fi ne ñaare faaw day day yee nit ñi ñu ci ëpp yàlla moo leen di yeel boppam waaw ña ca des it bu ñu régler seen montar te bëgg a yeewu moom bu soobee yàlla danañ yeewu léegi euh, loolu amatul lay su boobaa nga xam ne waxtu wi jot na wala nga mën a yee sa bopp mën a régler rafet defoo ko bàyyi waxtoo mu jàll loola ñàkk ngor la loola loolu mooy kufru weddi yàlla boo déggee ñu koy wax bu defee ne yéefare doo nga tax ñuy wax weddi yàlla mooy weddi xéewali yàlla kufru baatu kufru mooy suul jëf waaw mooy dama laa defal ay teraanga may la lu ne tabaxal la kër nangam nangam ginnaaw ba nga wëlbati ko di ma war wala nga may def lu ñaaw loolu kufru lañ koy tuddee mooy dama laa lu baax nga fayee ma lu bon kii faat waxtu julli nag noonu la mel yàlla daf koo lebal lu baax mu fayee suñ borom lu bon mooy bañ a lànk bañ a topp ndigalam te iblis kat benn sujjóot la lànk bañ a sujjóot suñ borom far aw turam ci nit ñu baax ñi iblis anamu yow nag mi nga xam ne nag bis bu set nga bàyyi ñaari sujjóot wala lu ko ëpp ndax boo ko deful ci waxtu yi mooy defoo ndigal la rek yàlla nañ ci yàlla musal bu dee laaj bi ci tegee mbokk mu baax mi di laaj nee na nit ki koo xam dafa takk soxna gannaaw ba mu dem ci ab sëriñam sëriñam sant ko mu fase soxna sax bu fekkee sëriñ bu mat sëriñ la nga xam ne moom du def dara lu dul ne dana xool ba xam ne lii lu mu war a def la su boobaa loola moom dagan na jaadu na nga topp ci sëriñ ba bu fekkee nag day koo xam ne wax dëgg yàlla fam ko teg du waxi dara wala boog amul solo wala ko wax dëgg yàlla la tax mu santaane loolu daal teguwul ci dara suba loolu nag waroo koo def boo ko defee dangay ngay amal da nga ameel ak ndaw si ndax dangay ngay xool bu buñ la ko defoon da ngay xool jigéen boo takkoon jigéen joo bëgg lool am ci moom yaakaar sëriñu jigéen ja ne ko ne ko génn sëy bi ni mu lay mettee lépp loo xam ne bëgg ngaa xam nam mettee rek da koy natt sa bopp wala bu fekkoon yow dañoo takk sa doom ju jigéen waaw ma nga am yaakaar sama doom ji wax dëgg yàlla sëy nangam kooka dem ab sëriñam ne ko bàyyi bàyyi ko ñu xëy suba indiwaat ko indiwaatal la ko sa kër gi xoolal ni muy mettee ci yow ni muy mettee ci yow na ngay meree kooka ak ko sant loola da ko mere loola subaa nag na nga xool kon na nga xool ci lii rek na muy mettee nga nga natt ci sa bopp ah bu fekkee nag kooka moom la tax mu def ko moom xam na ko am na daal ay mbir yoo xam ne moom xëy na xam na ko am na fu mu sukkandiku wala daal ay mbir yooyu moom yàllaa xam allahu aalam mbokk mi di laaj nee na mbooloo moo xam ne dañoo dem ba julli jot imaam ñëwut ñu am ku ñu jiital waaye kooka day gone waaye ba imaam ñëwee laaj leen ku ngeen jiital ñu wax ko ko mu ne gone kat naafila la la mën a jiite ay mukallaf waaye du julli farata ñu daal di julli waat julli ga mbokk mi laaj ndax imaam li mu wax noonu la waaw li wax exactement li mu wax noonu la gone mënta jiite farata jiitee farata julli ga du baax dañ ko war a baamu naafila nag mën na koo jiite donte taamuñ ko taamuñ sax mu jiitee la ay mukallaf bu dee ay moromi gone nag dara nekku ci bu dee laaj bi tege mbokk mi di laaj ne moom dafay digal soxnaam mu jàng waaye soxna sax da caa xaw a am na fu mu ko yebal ko del dem foofa di jàng waaye nee na soxna sax dafa xaw a tàyyeel muy laaj nu muy def waaw na def mooy moom ci boppam na ko jéem a jàngal ndax léegi kat jumtukaayu xarala yi aw lay amatul ci man damaa nekkul ak sama soxna loolu dàqu na suñ borom dagg na lay wow suñ borom dagg na lay wow léegi ni àdduna demi moom nga ne foo mën a nekk mën ngaa jàng sa diine lu bari mën ngaa xam sa diine ci ay ndéggat ay vocal ak ay internet beeg foo dugg ñiy jàngale ña ngay jàngale loo bëgg a xam sa diine man koo laaj moom lay wow jeex na kon nag fexe ba moo xam da ngay def say bind tey nga koy def ci wolof maanaam jàng sa diine moom bu fekkee nit ki dem na ba nekk mag jërul nga di ko làkk ay arab lu yomba yomb la lu yomba yomb la gëm yàlla mën nga koo tënk ci fukki minute def ko ay olof yu leer nañ gëm yàlla kat boo ko boolee juróom benn yëf rek la moo di gëm yàlla gëm malaa kay gëm nangam juróom benn mbir mu jeex julli suba ñaari ràkka la ràkka bu nekk lii lañ ciy tari boo liggéey nga laaj ko ko mu wax ko nga boole si nag di ko defee ak ma mooy fexe ba di ko neexal waaw bind yii ma lay waaj jox day bis boo ko jàngee moo ko dinaa la jëndal téléphone bu mel nangam waaw dinaa la changer ak yu mel noona loola xekk ma la ak xel xekk ma la ak xel na doomu aadama ñaare bet nga xamal ko xam sa diine ni mu nekkee farata nit ki bu xamul diineem conséquences yi mu am waaw mu ko mën a wàññi nit ki nit ñaare lépp lu mu réere rek da koy bañ waaye bu fekkee xam na ko day xam ne lii sama njariñ la maa ci war a not sama bopp waxantuma ak na ñu dema ci not kon nag benn mu di ko jàngal wala boog mu wut ay xeetu wakaal wala yoo xam ne da ci mën a xam diineem incha allah te fexe ba nax ko Euh, nit ki moom bu la bëggee bu xamee ne yow bëgg nga lii ci moom te bu ko defut du baax ci moom ah subaa day xaw a doy waaw ah, man de wax dëgg yàlla euh, euh, bokk na ci xeetu ni nga mën a fexe ba yu mel noonu nga am ko mooy man de bëgg naa la lool nangam nangam waaye wax dëgg am na lu ma neexul ci yow loo xam ne xam naa ne moom bu yàggee ci man du baax mu ne lu mu doon nga ne ko ah, mooy damaa xam ne amuñ lu dul diina ci ñun anduñ di fox anduñ ngir di bànneexu sa morom kes di kese yam ci dañoo ànd ngir di waxante dëgg te jàngal naa la diine ba sonn nga bañ waaw loolu daal neexuma ci yow tey xam naa mooy benn gàllankoor bi dox sama digg loolu koo ko wax bu yeewoo dana ci jéem a góor ak yu ak yoon naa deme bu dee laaj bi tegee mbokk mi laaj ne day bay baykat bi nag am na toolam ak léppam ne ko boo ma joxee barigoog gerte ma moom ko nga jox ma beneen barigo gerte ma bayal la ko muy fay bi muy laaj ndax loolu dagan na waaw loolu dagan na insha allahu rabbi bu dee tool bi nag daf la ko abal wala moo moo la koy jox noonu subaa kon loolu moo la ko jox waaye loolu dagan na kaay ma jox la ñaari barigoy gerte benn bi danga moo koy bayal benn bi mooy sama fay insha allahu rabbi loola dagan na wallahu aalam laaj bi tegee mbokk mi di laaj na da doon julli takkusaan ba mu yàgg xelam dem ci ne julliwul tisbaar mu ne ndax mën naa far rek tis tis takkusaan ja mu far ko yéene tisbaar <laughs> loolu de soo ko doon wax ab jóobeen boo ko bëggee misaal mooy lan mooy njóobeen boo xam ne dëgg yàlla euh, day añ waaw day añ ba mu yàgg mu fàttali ko ne démb réerutoon est-ce que kooku man naa soppi añ bi ab reer ab añ est-ce que mën na ne léegi sama añ bii daal naa ko far soppi réeru démb ba mën naa nekk mënta nekk loolu mënta nekk noonu la julli koo ko mel julli gi comme bi nga ciy dugg da ngaa yéene woon mu nekk takkusaan ba nekk ba ci biir kooku moom boo fàttalikoo koo tisbaar ni ngay def mooy da nga koy soppi naafi la kooku mën naa nekk ndax takkusaan ji mënta baax li fekk tisbaar da koo jiituwut ñoom ñaar tegale leen dafa nekk loo xam ne lu war bu nekk ab charte ci kaw boo ko fàttali ko nga ne du ak fàtte mhm. kon bu fekkee da ngaa jote julli benn ràkka bu mat sëkk da nga koy tóllante muy ñaar nga sëlmal muy naa nga daal di jëm julli tis tisbaar boo noppee julli takkusaan bëri na da ngay doog a tàmbali rek nag am ne daanaka sëggagoo sax da ngay dagg julli gi rek daal di julli tisbaar boo noppee kii bu fekkee da sori ni ki dem nga ba am ci ñetti rakk yu mat sëkk bëgg a nekk ci ñeenteel kon da ngay mottali da ngay mottali ba ñeente ya mat waaye boo sëlmalee da ngay dem julli tisbaar boo noppee baax mu waat takkusaan ci Raghib TV wallahu taala aalamu sawaab wa ilayhi almarjiu wal maab Raghib TV alhamdulilah bu dee laaj bi ci tege mbokk mi leerlu koo xam ne day wutal nit ñi ay client su ko defee nag ñu waxaale ne ko kat soo ma amee client soo ma wutalee client dinaa la jox nangam maanaam la nga xam ne moom la ñuy déggoo loolu mbokk mi laaj ba xam loola dagan na waaw waaw loolu na lépp loo xam nag ne nit ki defal ma nangam ma fay la te la ngeen di liggéey nekkul lu xaraam loola dagan na ndax nit day am connaissance loolu yàlla da koy may ay nit da yor mbir moo xam ne yaa ngi koy jaay waaw waaye mënoo gis client am na koo xam nag relation dafa yaatu mën naa daal lijjanti laqarti dem ci ay nit nangam woote fee téléphone nangam ba àgg ca ña ko soxla waaw ba àgg ña ko soxla fexe ba indi leen ñu waxaale bu yàlla dogalee nga jaay ko jox ko nangam loolu moom daggan na su boobaa nag moom it liggéey bi faaw mu teg ko ci aw yoon bu fekkee ne bëgg jaral rek tax na mu dem di boole di boole di la boole nit koo xam ne dafa am looy làq ci biir mu di la ko di la ko làqale loola day xaraam ndax yaa ngi jaay ab oto su boobaa moom xam na ne oto bi am na lu ci sikk kon du dagan muy woo kenn kooku ñëw ta nekku ne dana ko leeral sikk sax bu mu topp intérêt ak bëgg am xaalis tax nag mu am lu muy nëbb déedéet nan lépp lépp na jaar ci yoon rek daal da ngay tabax ay kër di ko jaay moom mu dem di la wutal ay nit ñëw di andi di visité buñ demee ba yàlla dogal njarte am na ca la ngeen waxante woon ngeen def ko loola dara nekku ca loolu nag prix ba ngeen juboo rek loola baax na ñi koy def ñëpp lii la ñuy wax déedéet loolu moom comme du ab loi bu ñu tënk rek incha allahu rabbi ku nekk rek la nga waxaa lekk nga siqal loola baax na incha allah wallahu alam mbokk mi laaj ku jóge ci ab dëkk ñëw ci ab dëkk nga xam ne dëkk xam ne fa jóge ak fi ñëw ma mat naa wàññi waaye ginnaaw ba nga jóge ci dëkk bi nga wàcc dem ci beneen dëkk te foofu mët ta wàññi daal lu mel ne juróomi kilomètre wala juróom-ñaar mutut mutut distance wàññi ndax da ngay wàññi wala déet déedéet kooku war ta wàññi waaye kooku warta wàññi mbokk mi ne dafa ah, am kilifa gu fa kilifa gu fa ñëw ah, goo xam ne ci misaal daal ma joxe misaal moo xam ne mooy gën a neex a dégg kilifa goo xam ne ci misaal dafa jóge si jógee Ziguinchor ñëw tubaa masalan xam nga mat naa wàññi waaw mat naa wàññi bu fekkee du fi am lu ëpp ñetti fan bu fekkee du am lu ñetti fan bu fekkee dafay am lu ëpp ñetti fan moom du mën a wàññi sax tubaa moom waaw tey mu fekk tubaa amu fi soxna léegi nag ginnaaw mu jógee Touba daal dem Daarul Musti nee na daal daal nee na ba mu demee ne daa wàññi déedéet loolu njuumte la kon juum na kon dafa xamul rek xëy na boo xasee ba ñëw Touba moom dañuy jàpp ne tukki bi moom jeex na tukki bi jógoonu si Ziguinchor Touba la jëm soon ak si nga Touba boo bëggee jógewaat Touba war a dem feneen léegi diggante Touba ak dëkk ba nga jëm lañuy xool bu fekkee mat naa wàññi alhamdulilah bu fekkee mëtta wàññi kon doo wàññi waaye bul wax rek ne man kat Daaru laa ñëw dëgg dëgg la diggante tuubaa ak Daaru Musti mëtt a wàññi waaye man Sigeesoor laa jóge woon dañ laa ne déedéet bi nga jógee Sigeesoor sa destination Touba la woon Touba lañuy xool léegi nag booy jóge Touba Touba la ñuy xool ak foo jëm kon loolu bu ko defee rek loolu xëy na ñàkk xam ak njuumte la wallahu aalam mbokk mi laaj ku fàtte ab ponk ci rakk bu njëkk bi tuddul nag ban ponk la kañ la koy mën a dabaatal waaw comme nee nga ci rakk bu njëkk bi day kon dañuy jàpp ne foofa benn ponk lañ fa xam mooy jàng faatiha jàng faatiha moom taxawaay bi nga koy taxaw ponk la waaye moom ñooy ànd jàng faatiha masalaan ku ñëwoon rek daal di kàbbar kàbbaru armal daal di tàmbalee jàng aw saar kooko moom même bu demoon ba rukkoo man xelam doog ciy dem sax day dëpp day siggiwaat day siggiwaat daal di jàng faatiha jàng aw saar daal di continuer julli gi bu noppee nag mu daal di sujjoot ba'da salaam même bu fekkoon ne même bu fekkoon ne euh, dafa bàyyi rukkoo kon nga xam ne jàng na faatiha jàng na saar léegi daal ponk bi mu bàyyi mooy rukon daal di jékki-jékki dem sujjooti xelam dem ci dem moom kat dafa bàyyi rukon fa mu nekk ci sujjoot ba lay jógee taxaw waaw nekk ci sujjoot ba rek lay jógee taxaw daal di dellu bu delloo nag bëgg nañ mu baamu dara ci alquran jàng dara moo xam saar woom jàngoon bu mu nekk faatiha nag wala beneen saar daal di rukon siggi rukon daal di àggale julli gi bu noppee sujjoot ba ala salaam loolu yenn la ci misaal rek ko mbokk mi laaj tuddul dara jox ko ñaari misaal yooyu bokk mi laaj ne dafa dégg ñu ne tisbaar takkusaan ñoo bokkaale waxtu timis ak gee ñoo bokkaale waxtu muy laaj kon ndax nit ki dana sañ bu jullee benn bi rek jóg julli ba ca des déedéet ñoo bokkaale waxtu boo ko déggee mooy ca cat la ca seenu mujj dañoo am ak dugalante dañoo am ak dugalante loolu nag koo xam ne day tukki koo xam ne day tukki te xam na ne la muy dugg du ci mën a julli te balaa àgg fa mu jëm waxtu bi dana ko raw subaa kooka may nañ ko mu boole ñaar yépp julli ko waaw ñaar yëpp julli ko ah, ah, bu dee mbokk bi nag misaal mi ci misaal moom du baax ndax dana ku jógee Thiès dem Dakar Thiès ak Dakar moom waxtu bi du la fi raw ah, boo jógee cees mën ngaa julli timis dugg ci oto bi àgg Dakar boo àgg Dakar da ngay fekk gee jot loo guddee guddee guddee moom gee du weesu ndax gee moom li fekk fajar jotu du weesuwut tax naa doone ma fajar gépp ngay daw boo jógeen fu gën a sori Thiès sax fajar du tax nga doo doo fanaan ci àll bi déedéet kon euh, boo jógee cees moom mënoo guddee guddee guddee guddee ba gee faat la kon nag da ngay julli timis dong boo demee ba àgg Dakar daal di julli gee même bu dee ay minuit nga àgg sax une heure heure boobu sax doo ko àgg waaye damay joxe misaal mais mu fekkul heure boobu nga àgg day fekk waxtu gee moom jeexagut ndax dafa gudd bu àggee nga daal di jàpp julli nga daal di jàpp julli gee euh, léegi nag bu fekkoon tey ji masalan nga nga jëm si gee waaw xam da ngay jéggi Gàmbi xam ne sori na ah te oto bi moom nee na wax dëgg yàlla di taxaw taxawee moom du ma ko def wala boog taxaw taxawee kat daa wóorut waaw ah, kon kooku moom bu tisbaar jotee mën naa julli tisbaar sëlmal julli takkusaan dugg ci oto bi jeex na waaw ah, ndekam wóor na ko ne bala buy àgg foofu moom takkusaan dana weesu wala boog timis moo jot léegi nii yaa ngi Dakar timis jot na jullil timis sëlmal euh, te oto bi moom day day départ léegi ndax bu fekkoon oto bi day toog départ agut kon da ngay xaar ba gee jot nga waaye bu fekkee day départ léegi te balaa àgg foofu moom euh, fajar dana jot te mun laa may ngay julli kon da ngay julli timis sëlmal doog julli gee sëlmal doo ko dugg ci dugg ci oto bi waaw loolu daal mooy li ñuy jàngale ci téere yi wallahu aalam laaj bi ci tege mbokk mi di laaj ne ñoom kat fa ñuy jullee julli ki it daanaka dañuy toog ba sonn euh, dañuy toog neuf heures daal daanaka ba boori midi ndax daa am ñu ñuy xaar te li fekk ñëwuñu duñ julli waaw loolu nag moom dama xamakut la ñuy xaar lu mu doon waaye nuru nuruwut diine diine moom xamut loolu ndax diine ak julli xamu ci kenn ku ñuy xaar imaam sax bu naajee ñëw dañoo war a wut jiital keneen mu dem kon julli moom amu ci kenn ku ñuy xaar léeg nag yenn dëkk yi daanaka dañuy doxal ay aada faaw sëñ diw ñëw faaw nangam borom dëkk bi diine moom xamut loolu diine xamut borom dëkk bi ak sëñ diw ak diine moom xamut loolu bu fekkee daam kilifa ku ñuy xaar kilifa gaat faaw day dëppook yoon bu julli jotee mu génn ñu julli amaa nag bu fa toogee wax dëgg yàlla ba zawal di waaj a jot kooka ameel ak nit ña euh, te it wax dëgg yàlla nit ña waroon nañoo julli xëy na dañ ko dul ñemee ndax kenn du du ñemee wax ndax léeg-léeg ngay jiital nit ba noppi am ca kerse wala yu mel noonu waaye daal loolu ameel ak nit ñi la bu doon lislaam moom danaan buñ xaaree diggante bañ war a xaar bu kiwut ku ñëwutit dañuy julli waaye amul kenn ku ñuy xaar nag julli moom yi fi yàlla la du ajul ci borom dëkk ak nangam nangam wallahu laaj bi tege mbokk mi laaj ndax nit ki sañ naa woor koorug coobarewu ba noppi jël tuyaaba ja maye ko xam naa nag li gën a jub mooy ñaan yàlla ñaan yàlla mu nangul ko tuyaaba ja te defal ko ko addiyee diw moo xam ab sëriñam la wala waajuram wu génn àdduna wala yu mel noonu waaw loolu dagan na mboolem jëf yu baax yi rek waaw lu ci lu ci nekkul farata jëf yu baax yi nga xam yaay jekki-jekki di ko def bu la neexee nga def ko ba noppi ñaan yàlla mu nangu ko tuyaaba ci mu defal ko addiye diw addiyey sa waajur o faatu masalan kooku dagan na insha allah waaye nag bul wax ne maa ngi wooral diw déedéet day wax maa ngi wóoral yàlla koor gi moom na ko defal yàlla waaye nag comme jaamu yàlla la na suñ borom sama koor gi yàlla nanga ma ko nangul te tuyaaba nga defal ma ko addiyee sama waajur wu jigéen wu daw la waaw ok wala sama sëriñ bu sama sëriñ sama sëriñ bu baax ba daal di tudd turoom insha allah wala nga defal ma ko addiyee mboolem jullit ñi faatu ñëpp yaa xam naka noonu boo jàngee alxuraan man nga ko naka noonu man ngaa jekk yëg naafila ñaari rakka tuyaaba ci nga yéene ko euh, sa sëriñ wala ku mën a doon loolu dagal euh, mbokk mi laaj na daa am waajoo xam dafa nekkoon ak nekkaaleem mooy koo xam daal tëkku ko comme ni bare rek lañ ci yàlla musal euh, waaye nag ginnaaw ba mu laaj ñu ne ko tey daal rafet na mun na day takk ndaw si ba nee ñu takk na ko ca lam wax xam naa nag ab jullit moom lu mu wax mënoo lu dul gëm la mu wax waaye nee na bañ ko laajee ne ko ndax waxtaan nga ceeg ndaw seeg mbokk ndaw si mu ne waaw mbokk mi laaj ndax takk kooka jaar na yoon waaw moom di wax dëgg yàlla comme ci mooy yàlla lañ nekkoon waaw comme ci mooy yàlla dañoo dañoo nekkaale woon rek di ànd di njaalo yàlla nañ ci yàlla musal eh, wala boog di ànd di nekk rek njaalo ko sax wax dëgg yàlla nañu yàlla jéggal daal dañoo àndoon rek eh, ñoom ñaar te lool it dëgganut jëmmi ànd gi rek ah waaye te yàlla dogal na moom takk na loolu kay nañ sant yàlla ba noppi rek waaw dañ sant yàlla bu dee takk gi nag la ci doon jaar yoon dëgg-dëgg moo di lan moo jigéen bu fekkee daa jote sëy ak moom sëy goo xam ne du jaarut yoon kon laataa mu koy takk waroon na koo laablu waroon naa beru ci jigéen ci jigéen ci dellu seen kër wala góor gi ci boppam waroon nañoo tàqali koo daal ba ndaw si gis dereeti baax ba set ba ndaw si gis dereti baax ba set wicc su boobaa nag ñu doog ko kay ñu doog ko kay may takk ga nag comme moom nee na takk na te yëgal na ko nit ñi loolu man awma ci benn information waxala kulli xaal daal bu dee takk na ko rek alhamdulilah sant yàlla ah, takk ga moom dana dana wér xëy nag waroon na koo laablu wallahu taala alamu sawaab ah, bu dee laaj bi tegee mbokk mi laaj ne dafa bëgg a takk jigéen joo xam ne doonu toon ab jullit wala boog du ab jullit waaye ndaw si dana day tuub te ay waajuram ñëpp nangu nañ mooy laaj ndax da koy takk muy doo ko tuub wala day tuub mu doo koy takk day tuub ba noppi tuub kenn du ko yeexee moom ba waaj ba ndaw si ne damaa bëgg tuub rek moom bis bi bu mu ko génn li nit ñi def nit naan damay tuub ñu di ko xaaral wala ñu naan nañ dem nañ xaar ba bis nangam loolu kenn du ko def loolu njuumte lu rëy la bu faatoo nag waaw tuub kooku amul xaar kooku moom amul xaar xoolal ku am xam wala bu dee yow mën ngaa fexe ba mu tudd baati seede yi ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah loolu moom boo ko mënee wax wala nga xam koo ko mën a wax rek ca saasa moom daal ko ci yóbbu waaw daal ko ci yóbbu mu daal di wax baat yi léegi nag la ca des ngeen xaar bu ngeen xaar leen ngeen xaar ko waaye tuub kenn du ko yeexe waaw kon ba la waxee ne man d'accord naa nga takk ma tayit nangu naa nga tuub ne ko tuub gi moom bisimilah mën naa nekk léegi jërut xaar nekku na daa am ñu mën a tuubal ñu mënta tuubal <laughs> réew mi aada ah, dafay yàgg ba tabarkàlla dañuy def ku bëgg a ñaa waaw nañ xaar bis nangam ñu yóbbu ko ca kanamu imaam déedéet ku bëgg a tuub na tuub ca saasa waaw na tuub ca saasa bu ko neexee nag mu xaar ba bis boobu mu gën koo feddil rek mbooloo mi gën a dajaloo pour ñu gën koo xam wala yu mel ne waaye na tuub bul bul naan nañ xaar bu subaak déedéet ndax xamoo ndax mën na fa faatu de te bu faatoo la muy am am yéene ndekam jote ko na tuub rek duñ ko jàppee ab jullit te yàqal ko ko li nga ko yàqal kañ ko ko kay fay kenn xamu ko moo xam gëm na ko ca xol baak loola ma ñun duñ àtte lool la ñuy àtte mooy ci kaw nit ki bala ñoo mën a wax ne ab jullit la faaw mu tudd baati seede ren ñuy dégg bu fekkee muumawut kon tuub kenn du ko yeexee kon nag bu fekkee ne nii nii may waxee ni tuubakut nga xam ne yéen a koy waaj moom na tuub ci saasa moom tuub gi moom bu ko bu ko gàll sax ci jëmmi sëy bi même bu ñu nekkoon bi ëmmatut ëmmatut tamit bu dee day tuub te tuub gi di dëgg rek na tuub te it nga bàyyi xel nag bu tuubee ba nga takk ko nga bàyyi xel yow mi ko yore yow mi ko takk xam ne dafa nekkoon ci jeneen diine bàyyi ay waajuram bàyyi diina yi ndeko ñëw dugg ci diina islam ngir yow ci yow lañ ci yow la jaare bu gisee ci yow jenn jikko ju rafetut na la wóor ne amel nga jullit ñëpp àq waaw yow yaa représenté jullit ñëpp yow yaa représenté yonant bi ci ndaw si ak i mbokkam yaa fi teewal yonant bi yaay ambassadeur am lépp loo def ci lu baax dañ koy attee lislaam dañ naan lislaam kat ñoom nii lañ mel ñu baax lañ waaw waaye buñ la gisee julli nga waroon wax naan li si ñun kat dañuy julli moom ci bopp mu gis la ngay biddanti doo julli wala ngay tegale ay julli yoo xam ne doo julli wala mu gis euh, waaja di carte julli bi di carte wala mu gis ko muy wax lu du dëgg ba tax ñu xeeb la xeebaale lislaam amel nga jullit ñëpp àq lu diis la nañ ci bàyyi xel euh, kon nag la tax mu sañ a bàyyi diine ak lépp won ko ko ba mu gis ko ci lépp anam bi yu mu mën a doon nag bàyyi lépp loo xam ne lu araam wala lu ko wala lu ko jege ba mu ba moom xolam sedd ci mu ne ah man de diina ji yeex naa cee dugg waaye bari na jigéen ju dugg ci diine génnaat ndax lan ndax lañ ko doon wax ci lislaam da koo gisut lu tax gisu ko ndax kim àndal kooku dafa deful da rey lislaam lu dul yor turu jullit rek ak naan jullit laa loolu nag moom amul njariñ ah, kon day tuub ca saasa su ko defee nag nga doo koy takk su ko defee boo koy takk nag jullit ñoo ñoo la koy may kon bu fekkee xas na bu xasee ba tuub ay waajuram duñ la ko mën a mayeti xam mën nañoo joxe seen accord d'accord rek waaye ab jullit mooy takk say booba ndax léegi ndaw si jullit la bu fekkee ne ndaw si nekkul ab jullit faaw ay waajuram ñoo koy fas ab jullit du ko fas waaye ci xel laaj mbokk mi laaj ne li xew nga xam ne ak céet bu amee dañuy korne nit ña dajaloo ah loolu moom aada te aada ju ñaaw la aada la te aada ju ñaaw la ñëpp ñëw dajaloo yuuxu def nangam ñee di foto ñuy euh, def la ñuy def ci mbedd ya loola rafetut xamal dara waaye jaxasoo gi mi indi góor ñaak jigéen ñaak ak yu mel noonu rek loola musiba la ah, su ko defee nag moom léeg-léeg yenn aada yi moom jëlee ko fi yombut alaaji malik si radiyallahu anhu yàlla ko yàlla fayal daraa wax naan Sénégal day aada moo fi man diine ku fi bëgg a jëlee aada sax moo wët ndiku yaa fi yow sax yaa fi yaa fi jóge cee sax sax goo xam ne jéggi na rey ko ñu ko nanguwut a bàyyi ndeysaan nangu ñoo yor diine kese faaw dañ naan faaw ñu boole ci nàngam Uh-huh. wallahu taala alamu sawaab wa ilayhi almarjiu walmaab hasa wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain loolu moo fi dajaloon ci ay laaj lu ci jub ci suñ borom rek la lu ci dëgg nag ci gàtt xam-xam matatik doomu aadama la la yàlla jéggal na ko te nangul na ko defal ñu ci ak sell ci ak mbaaxam allahuma salli ala muhammadin wa muhammad